الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي جلد يتدي بكي طالب يتدي أنجي دلو سيدي لين نيو سين تور أكسين سنت di leen siyaara ci weer wu tedd wii nga xam ne ci lañu soobu di weer wu mag di weer woo xam ne ci sunu borom tabaaraka wa taala baaxe jullit yi ba wàcc ci alquranul karim <coughs> shahru ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaas téere bu tedd booba nga xam ne mooy gindi mbindeef yi ci la ko sunu borom wàcc ci weeru tëdd wii ngir jubal doomu aadama yi di weer woo xam ne shahru rida war rahma weeru ngërëm la weeru yërmande la di weer woo xam ne léppam xeewal la léppam ab tereet la weer woo xam ne ci la sunu sang bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne أوله رحمة ووسطه معفرة وآخره عتق من النار ويروح خمني جال بن جي يرمني يرمني لا جوجي سي سون بروم تبارك وتعالى تبارك وتعالى جيم سي ميني في جولي دي ديغي بي نيل جولي دي مجي دي غوريل تدلا sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di mawlaana a ahmadul xadim ridwanullahi alayhi wa nafaana bi moom it sargal weer wi santaat sunu borom tabarak wa taala ci baaxe gi mu baaxe julli di ba andi guddi guddi gu tedd gii nga xam ne ci biir weeru koor la ko sunu borom andi تلا سند وحنا الحمد لله المجيب ذي القدر من قصنا فضلا بليلة القدر معظما لشأنها في الدهر حتى عاد خيرا من ألف شهر سن باغي كان سونو بوروم دي سانت سون بوروم ميغا خامني مو اندي غنيل يو تيد يي مو اندي غنيل سي غودي غو تيد غي دي غودي ليلة القدر sëñ Tuubaa wax ne sunu borom ci boppam moo màggal guddi gi ba tax mu def ko guddi goo xam ne jëf joo ci jëf mooy wecc jëf ko ci junniy weer di juróom-ñetti fukki at ak kon nag nuy profité ci weer wi ak guddi gi nu dëgmal di ci siyaare mbokki jullit yëpp diko tambale ci sunu kilifa bop di Serigne Touba al Cheikh mohammed al Muntaha xafidahullahu wa raahu diko ci ziaré bu baax diko ci ndokel bu baax di ci ñaan sunu borom tabaaraka wa taala al ali al qadir mu yagal ko fi te may ko wér ba lépp li mu yene liggéeyal wajuram yu tedd ya yéena ko liggéeyal maamam ju tedd ja di Cheikhul Xadim yéena ko liggéeyal ak tariqal muridiya yéena ko liggéeyal diine islaam mu def ko nam ko bëggee di jëmm joo xam ne moom a Cheikh Mouhamadul Muntaxa taarub yoon wi la taarub lislaam la di jëmm joo xam ne sàmm yoonu sëriñ Touba bi taxawu njabootu sëriñ Touba bi taxawu diine islaam te sàmmit li nga xam ni euh, bokk na ci li gën ci mbindeef yi muy xam-xam manes naa fa ne ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa boo amoon ab tool toolam mooy xam-xam alhamdulilahi rabbil alamina sunu borom boole na ko ci borom xam-xam yu mag yi te xam ngeen ne borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonente yi ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulama warasatul anbiya wax na ne borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonente yi bi ñu demee ba nga xam ne yonente amatul borom xam-xam yi ñoo leen fi wuutu ñooy dox dox yéen ya ñu daan dox ci digle lañu daan digle di tere lañu daan tere di teete jullit yi ci yoon wa nga xam ni moo gën ci ñoom tey ak ëllëg Cheikh Mouhamadul Mountakha te ñooñu la bokk kon loolu ndam la ci askanu askan wépp ndam la ci yoon wépp ndam lay dem ci diini islam bépp yàlla def ko muy jëmm joo xam ne noonu sëñ Tuubaa ñaane woon sëdd yoo xam ne dañuy yeesal yoonu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba sëñ Tuubaa ñaanal ko boppam sunu borom tabaraka wa taala sëñ Muntaxa ci ñooñu la bokk yoon wi nga xam ne itam moom la sëñ Tuubaa xàll nga xam ne waxal nako bopum boppam nga xam ne bu bu ñu bu wax ne sëñ bi lu ko tax jóg ñu ne lii moo ko tax jóg muy fi mu waxé ne lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al-xarra wa inni ahmadu xamni sëñ bi mom dafa définir li ko tax a jóg waa li ko yitteel mooy ñëw yeesal defarat rénové sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp ku bëgg a àgg ci sunu boroom bi waasitati rasuul yi sallallahu alayhi wa nga mën ca àgg yoon woowu Sëñ Tuubaa xàlloon Sëñ Muntaxa bokk na ci jëwriñ yi koy taxawu waxtu wu nekk di ko leeral waxtu wu nekk di ci xettali mbindeef yi yàlla defi nag bis bii nu dëgmal te di ko waajal wàllu waral jataay bi tribus bo xamné ki tax nu di def mbaa ki ko don def te jox nu ndigal nu wël liggéey bobu di al almarhuma soxna Maymunatu Mbàkke ridwanullahi alayha wa nafa'na bi barakatiha lépp bis bi da tagon ci loxal al cheikh Mouhamadul Muntaxa ni mu ko baaxoo defi waxtu weer tero wala muy bëgg tero daan dem ci ki fi nekkal sëñ tubaa di kenn ci magam yi laaj la ndigalul ndax day wéyal liggéey bi wala déet waaye bu ko masaa def ba am ci ndigal ba noppi ndax may woo ma ñëw mu ne ma demal ma ci sama doom ji di Cheikh Mouhamadul Mountakha gannaaw am naa ndigalul njabootuk sëñ Touba gi kon sóobu ci liggéey bi mooy li des waaye bala nga ciy sóobu. dem ba ci serigne muntaha waxtan ci ak mom mu wax la na mu bëgg nga doxale ko ci biir ak ci biti ci tàmbale ba ci mujj te booba ci yi nga xamné mom la son borom def ci mom ak ci gul ci mom ndax booba waxuma waxuma la nekk al am li tariqa al muridiya waaye nek gul sax xalifa ko sëñ Basiiru fu mu mosaa nekk fu ne ma fekk fu ne ko ah, sa wajuru tëdd ba sa bajan bu tëdd ba sa sëriñ ba nee na am na ndigalul wéyal bis bi waaye nag léppi doxe doxe doxin bi ak doxalin bi na mu ko daan teg ci sa loxo noonu la ko defee sëñ Muntaxa rafetlu loolu lool ànd ak mbégam ànd ak ànd ak mbégteem ne ma defeel nii defeel nii defeel nii waxeel nii waxeel nii waxeel nii loolu moo fi nekkoon naka jekk ba yàlla def tey mu toog ci jotaayu sëriñ Tuubaa nekk as nekk sëriñ Tuubaa loolu moo waral noonu soxna si baaxoo def te bi mu làqoog léegi di ñaar fukki at ak benn ndax ren mooy juróom ñaar fukkeelu at ak benn bi soxna si tàmbalee liggéey bi defal na ko boppam ci jëmmam ju tedd ja juróom fukkat ak ben yalla def bimu laqo ak legi def nañ ko gannaawam ñaar fukkat mak sama mak ju tedd ja di sama lepp di sama walere di jaaratullahi maryam mambusu bali baali rahmatullahi taala alayha bi nga xamantene ne dem naa ba wax sëñ muntaha lolo mune ma yeesalaat naa ndigal danaa leen ci ñaanal ba yéene ju ngeen ci am ngeen jëfe ko nu kawe seen yéene nem daa ci teg ne te ngeen xam ne liggéey ba bépp maa ngi maa maa yow ak maa ngi yéen noo koy ànd ci biir ba ci biti daal di jox ndigal ab taawam di sëriñ koso daaw da ko njëkk a yabal mu ñëw ba fii ci man mu ne ma sëñ bi nee na bis bi bisam boppama waaye nag nee na nga ñëw ànd ak man mu wuy si ko fekk de mën a ba mu ndigal bi ma demee mu ne ma noonu ma lay joxe ndigal daa joxe ndigal koso mii koso mii nga xam ne wajuram nga léppam nga waaye nag ndigal li ma ko jox mooy foo ci toll ak wet goo bëgg mu doxe ko mbaa mu awla ca mbaa nga yebal ko ca mbaa lu ko bëgg a def la ko ko noonu ni lañu àndi liggéey bi daaw ba liggéey bi jeex ren ji bi nga xamante ne dem naa ba am ci ndigalit kàddu yu tedd yooyu ak wax yu tëdd yooyu moom la sëñ bi waxaat ci sëñ Koso ba jotaay bu njëkk bi njëkk a def muy avant première wala appel moo ko teewe jël kàddu sëñ bi jottali ndigal yi nga xam ne moom la ko sëñ bi jox kon nag maa ngi yeesal samay cant ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yeesal samay ngërëm ci moom di feddali li ñu seq ci bokk na ci la ma ci gën a ñor mooy taale bi gi ñu seq ndax nun mooy doon taale bi sëñ Touba te ku fi nekkal sëñ Touba ku ne nu jël sunu bopp jëlug moom def ci sunu baat jébbal ko ku fi nekkal sëñ Touba kon maa ngi feddali lool ci Cheikh Mouhamadou Mountakha di fedd li bokk gi nu seq ci fànn yëpp di ko xamal ne ko njaboot ak soxna Maymuna Mbàkke di fas nañu yéene ba ba ñu koy fekk dañuy tënku ci doon ay jullit xàqan doon ay murit sàddeq di wéy ci ndigal ko fi nekkal Sëñ Tuubaa soxna si def daan wax ni <clears throat> yetti yëf di sant na ci yàlla ñu ne ko lan ak lan mu ne sama cofeel ci alxuraan sama bëgg alxuraan ñëwuma ci kenn sama gëm sëñ Tuubaa ñëwuma ci kenn ndax jàpp mu ne kenn gën na ma koo gëm sama wóolu sëñ Tuubaa ak sama doylu sëñ Tuubaa ñëwuma ci kenn la ko la ma koy tëjee nag mooy fas naa yéene lépp lu ma am naa ko def ci liggéeyal sëñ Touba sama dund gépp fas naa ko yéene jeexal ci liggéeyal sëñ Touba loolu moo sababoon néew na fu ko waay fekk te fekk mu yor kaamilub alxuraanul karim di jàng walla bu yorul kaamil bi di jàngit ma ngi koy tari loolu moo doon moo sababoon fépp fu daaree alxuraan ne rawatina ji ci yii ci biir dëkk bi ak jamono bu mën a doon ak fi mënoon nekk alxalifa dundug daaray kaamil yi naka jekk moo ko gàddu woon di ko def noonu mu saxaloon ku fi nekkal sëñ Tuubaa ku ne ndebul añam li ak ndebul reeram bi du manqué ci yow nga xam ne dara wax ne dafa day dafa day jàpp ne bu fi sëñ Tuubaa nekkoon ci boppam loolee warteef la ci moom ci da koy saxal da ko def noonu la ko daan defal mboolem ñi fi nekkal seigne touba waye noonu da daan sayto daari kamili yi seen café seenub añ seenub rer naka jek moko fete wo ba lawal ko ci yeneen daari kamili yoon wo mu nekkon nak nga xam dafa jexal léppam ci liggéeyal sunu borom tabaaraku taala te da ko def ci alquranul karim defal defoon boppam taale bi sëñ Tuubaa boo xam ne du wàcc mukk mukk ci ci toolu sëñ Tuubaa loolee di ca la yar ca la te moom la nu digal te wallaahi bu ne bu ndee ay sax ba duni tukki hmm? li fi nekk rek moo fi nekk fas na nañu yéene bis bii fa ko soxna ma yóbbu woon fas nañu ko yéene yóbbu fa ko gën a kawe ndax Serigne Touba amul tànki gannaaw te bëgg-bëggub soxna may ak pas-pasub soxna may ci liggéeyal Serigne Touba àggoon na foo xam ne bu fi bàyyi woon bant sax bant boo war naa mën a wéyal liggéey ba. kon nag noo ngi dellu di sant bokki bokk yépp di sant bokki taalibi yépp ni ma ko waxee bokk yi nañu xam ne fii seen kër kër gi seen kër wajur la kër gi seen seen kër sëriñ la kër gi seen kër bopp la dafa tolloo kër faw mu am li ñuy tuddee ka koy wattu loolu lañu jàppe sunu bopp waaye njabootu Sëñ Tuubaa gépp noo ñoom noo yem ci kër gi kon nag bis bi seen bisu bopp la naka noonu mboolem taalibi Sëñ Tuubaa yi ñoo xam ni soxna may dafa dalee na boole woon ci si noonu ñu jàpp seen bopp def taalibi Sëñ Tuubaa noonu la soxna may defoon boppam taalibi Sëñ Tuubaa dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal sañ tubaa dundam gépp ma def ko ci sopp sëñ tubaa lu mu am mu def ko addi sëñ tubaa delloo ko ci jànkate alxuraan yi delloo ko ci daaray kaamil delloo ko ci bokki jullit yi kon nag bis baa ngu noonu ñoo ngi ci woo bokk yëpp di njabootu sëñ tubaa gi di ci woo bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibi yëpp ñu fas yéene nag tënku ci ni ko soxna si daan defe mooy la ca jiitu mooy sax ci njàngum alxuraan wi boo dem daara kaamil yi nga xam ne ñooy saytu njàng mi kenn ko ci nekk sama ndaw ak seen fi fi yow sunuy sunu kàddu yi yëkkati nañ ko teg ci sa loxo sàkku ci yow lo daan jang ci alcorane nga dolli ko defal ko def ko adi seigne touba def ko adi soxna may muna mbake te fàttali ko sunu jambar je sunu magju ju je ja di jaaratullahi soxna maryam Maam Busu mbake def ko adi njabotuk seigne touba gep di ñaan itam daara yi nga xamne ñoy feto féetewoo njàngum mi lu ci waay man nga di ko def di ko def addi sëñ Tuubaa ñu xam ne alxuraan moom la sëñ bi fonkoon alxuraan sëñ Tuubaa tegoon na ko foo xam ne tegu fa leneen bu ngeen gisee soxna may ngoyoon ci alxuraan dafa xam àqi alxuraan xam fi sëñ Tuubaa tegoon alxuraan xam ndigal yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa digaloon mboolem ñi aju ci moom ci wàllu alxuraan lu ci waay jàng na mu def ko addi sëñ Tuubaa di ñaan taalibe bi itam rawatina ñi nekk ci biir dëkk bi ak ci koñ bi ak ci kër yépp ñu gën a yaatal seeni dënn bu baax teeru gan teral gan taxawu gan yi di santit sunu yeneen bokk yi nga xam ne bokk noo ñoom tariqa waaye noo bokk diine islam bi te ñoom it ñu am cër yu rëy yu ñu joxoon soxna Maymuna Mbàkke ngir teggum teg tànkam ci sharia ak xaqiiqa ak yéene ju amoon ak pëste bu mu amoon ak teraangaam joo xam ne dafa lawoon ba àgg ci bépp jullit ak bépp këru diine kon mboolem turuq yi ñoo ngi leen di fàttali bis bii nga xam ni seen bisu bopp la ndax bari na daari kaamil yoo xam ne ña koy saytu ci yeneen i tariqa lañu bokk ñoo ngi fàttaliku sunu mbokk mbopp mu tedd ma di almarhum Maodo Malick ture di sëñ Maodo Touré. taxawaayam yu rafet yom daan taxaw ci bis bi bi fi soxna si nekkee ba bi mu ko noppee gis mu wéyal taxawaay yooya bu ngeen demee ci kaagu gi ci suuf di bibliothèque bi ci suuf bari na lu ci nekk ci ay téere alxuraan ak téere xam-xam ci sëriñ Maodo Touré la bàyyi ko taxawaloon na ay daara fa Tiwaawan taxawal ko fa Fass kër baayam taxawaloon ko fa fa Ndar naka noonu ñu bari ci bokk yi nga xam ne noo bokk diina ji te bokkuñu tareex yi dañoo amoon positif te rafetlu doxeenu soxna may ci diini islaam rafetlu doxee rafetlu doxeenu soxna may ci bokk ji ba tax na bu weer mosaa dikk taxawaay yu leen war rek dañ ko ci def kon ñoo it noo ngi leen di fàttali ne bis bi seen bisu bopp la bu baax di santit bu baax sunu kilifay bopp yi nga xam ne gannaaw bu ma jógee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha dem naa ci ñoom tàmbale ko ci sunu wajur di sëriñ Abbas mi fi nekkal borom Daaru Muxti laaj ko ndigal sàkko ci moom ñaan mu rafetlu ko lool joxaat nu ci bu baax yabal doomam mu ñu fekk jotaay bu njëkk bi naka noonu ki nga xam ne mooy sunu kilifa kër di alxaaji maam Thierno ñu ngi taawu sëñ Balla te moom itam ku ne xam cër bi mu joxoon juróom wi di soxna Maymuna Mbàkke mooy taxawaay bu ko war ci bis bi def na ko dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal nu ndimbal ak tawféex ba nu àgg ca bis ba defe ko ni ko soxna si bëggee woon wala nu ko raw te lépp luñ ci taatan sunu borom lawal ko ci sunuy loxo ak loxo yi mboolem njabootuk sëñ Tuubaa gi labal ko ci mboolem taalibi sëñ Tuubaa yi labal ko ci mboolem jullit yi ñaan réew mi nu nekk itam sunu borom def fi jàmm akuk déggoo ak tawféex akuk ànd di ko yëgal it yi nga xam ne noo seq réew mi kilifa yi diine yi fa féete ci fànn gi ñoom it ñu féete ci fànn gee ci ñun ñëpp noo war a bokk benn but bu ñuy dox mooy njëriñul fi ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi Wasallam wax na ne kullukum ra'in wa kullu wa kullukum masulun an raiyati nabi sallallahu alayhi wasallam sallam na kenn ku ne ci yeen ab sam la waaye nag na xam ne kenn ku ne ci yeen dana toog dana dajeeg boromam mu laaj ko lam doon sàmm loolu kilifa ak diine ga ma nga ci biir kilifa ak àdduna ga ma nga ci biir kon nag li nu war a bokk xam muy ñi ami diine ji ak ñeme wàllu ami wàllu àdduna bi mooy mbindeef yi lañu bokk seq ñii féete leen ci fànn gii ñii féete leen ci fànn gii kenn ku ci nekk nag boo defee sa warteef na mu waree mu nekk jàmmi réew mi nekk jàmmi mbindeef yi nekk jàmmi jullit yi yàlla ñu si sunu borom dimbali te defal ci ndimbal ak tawféex ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa mu def na ay jullit xaqan def na ay murid saadiq te lépp lu ñu jëf rek ñu def ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa te daje daje si ngërëmu sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.